woo ci ñuy xalaat ndax yàlla boo xoolee alquran sa bi wax rek day wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom xel yi ñi nga xam dañoo am ay xel di ci xalaat di ko jëfandikoo suñu borom toujours ñooñu lay waxal yàlla nag lim bind te def ko ci kaw suuf diggante asmaan ak suuf dafa fees dell ak ay kaawteef yoo xamante ni loo ci xor rek mu won la ki nga xamante ni moom moo ko amal. ndax suñu boroom moom déggoo ko te it gisoo ko waaye nag mën nga koo gis ci li nga xamante ni moom moom la bind <clears throat> loolu nag moo tax boo ko xoolee rek dana la delloo ci ci ci aji kawe ji subhaanahu moo tax fi mu toll nii balaa ñooy dugg ci jotaay bi rek danañ leeral ci li nga xamante ni doon nañ ci waxtaan ci waxtaan wi di jàll ci wàllu burji ni nga xamante ni noonu lay jeexantalee ci doomu aadama yi ni nga xam noonu lay jeexantalee ci li yàlla bind lépp ndax burj yi suñ borom da leen bind ci ay tabiya maanaam doomu aadama tamit suñ borom da ko bind ci tabiya moo tax lépp day jeexantal ci ci ci moom ndax loolu moom suñ borom moom moo ko tërlee noonu loolu nag yàlla mën naa am mbir dara. ba yàgg mu daal di koy soppi ngir jooy doomu aadama yi loolu nag doo ko delloo ci lu dul coobare suñu borom subhaanahu wa taala ndax yàlla moom moo ne ci mbir yi te di ci jëf ndax masalan tey suñu borom subhaanahu wa ni mu waxee ne wa samaa'i daatil buruji mu ne burji yi asamaan dafa am ay burju burju yooyu bu ci nekk am ci <clears throat> foo placé ci asamaan si nga xam te ni yow fa nga nekk burju yooyu noonu nag képp koo xamante ni dafa judd daa di tombee ak burj ca burj ba mu tombeel faaw dafay jeexintal ci moom loolu suñ borom moom moo ko ci def waaye du jëmmi burj ba ndax yàlla moom daana ci ginnaaw li mu bind di ci jeexintal su ko defee nag boo njëlbeen gi mën ngaa gis jëmmi mbir ma te fekk sax mbir ma du loola waaye dafa am ku ne ci ginnaaw tabian tabian buñ ko waxee mooy nature di jeexintal ci mbir yooyu moo tax daanaka philosophie yi nga xamante ne leen gis ak scientifique yi ñu dem ba daanu ci loolu jàpp ne nature bi moom moo jékki-jékki rek amal lii lépp nga xam adduna bi nature bi dafa jékki-jékki rek daal di am ta dara amalu ko fekk ñoom dañoo gis nature bi ni muy jeexantalee ci mbir yi waaye du jëmmi nature bi dafa am ku ne ci ginnaaw te kooku mooy rabbu samaawaati wal ardi waaw di laa ilaha illallah nga xamante ni moom <clears throat> mooy jeexantal ci mbir yi waaye du jëmmi nature bi ndax nature bi moom tabiya suñu borom daf ko bind. dafa dafa bind doomu aadama boole ko ci tabiya jël tabiya jaxasewaat ko ci biir doomu aadama nga xam li mu bind lépp faaw muy jeexantal moo tax boo déggee ñu naan la biddiw sàngam dafay jeexantal ci doomu aadama du jëmmi biddiw ba waaye yàlla moom mooy jeexantal ci mbir yooyu ndax niñ koy faral di bis yi. day jeexantal ci doomu aadama semaine yi day jeexantal ci doomu aadama weer yi tamit dafay jeexantal ci doomu aadama misaaloon naa ci ne koo xamante ni dangay liggéey weer dee ñu fay la danga nga yëg ne yow dañ laa fay waaye koo xamante ni dafay liggéey weer dee joxuñu ko àqam kooku day yëg ne moom fayuñu ko ndax dana metti ci moom lool. waaw am na bis ci bis yi tamit bu dikkee bisu mbégte lay doon waaw am na ñoo xamante ni buñ juddoo bis ba dellusiwaat bisu mbégte lay doon ci ñoom waaye dékkuwul ne bis bi moo leen bégal waaye yàlla moo jaar ci ginnaaw bis yi maanaam def ci ñoom mbégte waaye bi jëmmi bis ba ndax bis boo xamante ni rek maanaam ree nga ci mu doon bisu mbégte suñ borom mënoon na ko soppi def ko mu doon bisum naqar kon waxtu yi tamit noonu la tëddee ndax àdduna li fi am mooy waxtu maanaam minute seconde minute waxtu bis semaine weer at yooyu noonu nag noonu ko suñ borom tëralee muy jeexintal ci doomu aadama noonu la tëralee tamit yeneen mbir yi ci des yëpp ndax ni ma koy leeralee yàlla bu ko sooban mu jël doomu aadama yëpp amandoo noo leen ci benn bis ci benn waxtu ci benn minute ci benn seconde waaye dafay ni mu tëralee mbir yi ku ci nekk mu am jamono bu mu la feeñal loolu xikmaam suñ borom la boo xamante ni moom moo koy tërlee noonu di ko doxalee noonu waaye nag ku ci nekk soo juddoo danga nga buur burju ci buur ji waaye nag buur burju ba nga tombeel faaw mu jeexantal ci yow jeexantal googu muy jeexantal ci yow doonul ne jëmmi burju ba la waaye yàlla ci boppam moom mooy def loolu moo tax ñi nga xamante ni dañuy xool saaxir rek di gis jëmmi saaxir si rek ñom dañuy daanu ci loolu dañuy jàpp ni nangam mooy def nangam nangam mooy def nangam bu mujj dañuy dem ba yegg sax ci di jaamu lu mo loolu noonu bu ko defee dañuy dugg dañuy dugg ci biir sirku <coughs> fekk ñoom waruñu woon a gis mbir ma rek dañoo waroon a gis ki ne ci ginnaaw mbir yi di jëf ci ginnaaw mbir yi masalan tey ci biddiw yi am ci biddu yoo xamante nga cee sukkandiku maanaam ngir mën a xam ngalaw loo xamante ni dafay dikk léegi maanaam ki nga xamante ni moom saa si rek lay xool mën naa jàpp ne biddiw boobu moom saa suñ ko gisee rek masalan tey ngelaw li day ñëw mel ni daal biddiw boobu rek moo fi indi ngelaw li fekk déedéet biddiw bi moom indiwul ngelaw li waaye yàlla moo ne ci ginnaaw di jëf ci lim bind. moo tax kon boo déggee ñu ne la burju sàngam dafay jeexantal ci yow doonul jëmmi burju bi ndax yàlla tamit lum bind rek wa maa xalax na samaawaati wal arda wa ma baynahuma baatilan yàlla bindul dara ci ak neen lu bind rek am na lu tax mu bind ko am na xikma bu tax suñ borom bind ko te nam ko tëralee am na xikma bu tax suñ borom tëralee ko noonu yàlla tamit kon ci buruj yi mën naa def maam masalan tey képp koo xamante ni danga bokk ak moom benn buruj bu ngeen judd ñaar ñooy dañuy bokk tabiya mana bu ngeen bokkee ci benn burju bu ngeen judd ñaar ñooñu toujours dañuy bokk tabia ndax bu ngeen bokkee benn burju bu ngeen judd da ngeen bokk tabia te seeni mbir dafay dëppoo man ngeen bañ a bokk benn burju bu ngeen judd ba pare maanaam seeni tabia bokk maanaam seeni tabia bokk man ngeen a benn bokk benn burju man ngeen bañ a bokk benn burju bu ngeen judd te seeni tabia ànd man ngeen a bañ a bokk burju bu ngeen judd man ngeen na bañ a tabia tabiya ba pare sey tabiya daal di and loolu suñ borom moo ko tëralee noonu waaye nag yàlla mën na koo noonu ba mu yàgg mu rek soppi ko dara am tax mu soppi ko bu ko defee loolu day dugg ci biir coobare suñu borom joxe woon naa ci misaal yonti yàlla Moussa <clears throat> benn bis bi nga xamante ni feebar na suñu borom daal du koy faj sans condition beneen bi ci des mu feebar suñu mborom daal di koy tegtal li nga xamante ni mooy ak garab mu dem wetti ca jëfandikoo ci daal di wér beneen bi mu feebar daal di jëfandikoo ci garab gi wérut suñu borom ne ko dama lay jàngal ma mooy bi nga feebaree dama laa faj sans condition mooy ci sama coobare naa laa faj te du ko teg ci dara waaye nag mën ngaa feebar ma teg ko ci condition ngir nga mën a jëfandikoo dara daal di wér léegi nag man nga feebar condition yamako tegon ta lola nga dem jëfandikoo ko ba ñu wër lolu ci sama coobare bop ci lay tëdd ci ci la ki ci la nga xam léeg am ta do ko tënk ci dul coobare suñu borom wata kon tabia ni mi jeexantele ci doom adama doon ne jëmmi tabian bi la waye nak suñu borom la motax scientifique yek philosophie ñom duñ gis loolu motax léegi ñu dem ba daana ci jàpp ne Nassir moom dafa jékki-jékki rek amal boppam waaye kenn amalu ko nga xam li am nii lépp Nassir bi daa jékki-jékki rek formé wu daal di jékki-jékki daal amal boppam te loolu xel da ko nanguwut waaw maanaam xel noonu nanguwut loolu kon maanaam suñu borom ngir rek indil leen ay misaal ngir mu gën a leer ñu xam tabiya ni muy jeexantalee ci li yàlla bind lépp ndax fi na boo xoolee nawet noor. maanaam mboolem faslu yi ngay gis nii yëpp rek yàlla ci tabiya ci leen leen bind. mën naa ne sax daanaka li yàlla bind lépp fi noon ni ci tabiya la ko bind te loolu tabiya boobu day jeexantal ci doomu aadama nga xamante ni tamit jëmmi doomu aadama sax suñ borom ci tabiya ci la ko bind ndax suñ borom dafa composé doomu aadama ci ñeent tabiya muy turaab yi maa yi naar yi ak hawaa yi ba ci buur ji yooyu tamit. ku ci nekk ci tabia da nga am ci tabia benn ci yooyu moo tax saa boo juddoo faaw nga jël ci yenn ci burj yëpp da ci jël ci seen tabia waaye nag bi nga judd nag moom mooy ëpp doole ci yow maanaam bu fekkoon da nga jël ci ci des bu ci nekk da nga caa jël cinquante ci tabia am jëmmi burj bi nga judd moom di nga jël ci moom quatre-vingt-dix-neuf pour cent di nga ko jël ci moom kon mu ngi noonu kon suñu borom. subhaanahu wa taala dafa wax ci alquran ne alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walaw shaa la jaalahu saakinan suma jaalna shamsa alayhi dalilan na suñ borom day subhaanahu wa moom moo bind li nga xamante ni mooy ker ker naka jëkk dafa amoon ker ak takk ndeer naka jëkk suñ borom daf leen bind waaye nag bu fekkee ne jant bi dafa génn dafay tegtale ker yi dafay génne ker yi ndax jant bu génnee da ngay gis ker gi daal di génn bu fekkee ne jant bi dafa nekkee ci penk bi da ngay gis ker yi jëm ca côté sow ba nekk ca sow ba waaye nag su fekkee ne dafay déplacé wu di jëm ci fi nga xamante ni mooy sow bi da gis ker gi commencé jëm ca penk ba nga xam loolu tegtal la ci su ma jaaxal na samsa alayhi dalilan nga xam te bu sooboon suñ borom jëmmi jant bi mën naa génn ba pare te du tee ker gi moom fi mu taxaw lay taxaw du déplacé wu moo tax suñ borom ne walaw saa la jaalahu saakin bu sooboon suñ borom da koy def rek mooy teg du déplacé wu waaye nag jant bi daf cee nekk tegtal kon jant bi mooy tegtal ab tegtal la ci kër gi di leen wane ndax saa bu génnee rek da gis ñoom it ñu génn. kon gis nga foofu ni jant bi jeexantale ci takk ndeer yi nga xamante ni ñoom kon naka jekk dañoo am moo tax sax bu fekkoon ne jant yi moo fi indi takk ndeer wala ker bu guddi jotee deesul gis takk waaye bu guddi jotee ba tey dañuy gis takk waaye nag su bëccëg gi bu génnee déplacé googu ñuy déplacé wu jant bi moom moo leen di déplacé kon gis nga noonu muy jeexantale ci li nga xam moom mooy doomu aadama niki noonu tamit. Euh, doomu aadama jant bi dafay jeexantal ci moom weer wi dafay jeexantal ci moom suuf si dafay jeexantal ci moom jant bi léegi léegi sa yaram am lu mu soxla am lu mu yittewoo ci ay vitamine jant bi moo koy jox kon jant bi dafay jeexantal ci doomu aadama nga xamante ni suñu borom biddiw daf leen a bind jox leen mission yoo xamante ni dañ koy dox jant bi mu bind ko jox ko mission boo xam da koy dox. suuf si mu bind ko jox ko mission boo xam da koy dox weer wi mu bind ko jox ko mission boo xamante ni maanaam da koy dox nga xamante ni boo xoolee suuf si mission bi ko suñ borom subhaanahu wa taala jox mooy yow kat mbindeef yi digal naa la nanga leen ëmb téye leen bañ man fay ne ci kaw suuf ni ki noonu tamit di fi dund ci kaw suuf di fi mën defar seeni kër di fi mën di bay di fi man def lépp. suuf si tamit daan nekk ci ndigal loolu di ci dox di ca góorgóorlu léegi noonu tam weer bi suñ borom ne ko yow dama laa bind del daw di wër suuf si tey del xamal doomu aadama yi li nga xamante ni mooy seeni bañ mën di ko jàpp bañ di tasaaroo bañ mën koy takk bu baax bu ko defee dara bañ ciy réer mu ne jant bi yow sa mission moom mooy nekkal leer gu tàng jir te dee ko jox suuf bu ko defee tamit suuf di mën di leer doomu aadama yi di mën a gis fi ñuy jaar yow tamit del génne ker gi di keral doomu aadama yi su ko defee tamit jant bi ne ci loolu di ca góorgóorlu yeneen biddi yu ci des yépp noonu na leen suñu borom ku ci nekk joxe mission boo xamante ni yow da nga koy dox nekk ci service doomu aadama nga xamante ni boo xoolee li nga xamante ni moom mooy tabiab jant maanaam li tax ma man ngaa bokk ak moom benn bañ bokk benn tabiya te du sekk du du tee seen tabiya daal di ànd mooy masalante yi li muy wax nii dama koy faral di leerle rek doonut maanaam wàllum lasaar rek yu mel noonu maanaam lii suñ borom moo bind na tiir yàlla dafa bind na tiir ba am nu mu ko tëralee noonu mu ko tëralee nag maanaam mu cay dox loolu dafay xam-xam bu leer nañ subhaanahu wa taala kon loolu buñ ko jaawale ba mu jaawlawut ni nga xamante ni suñ borom mën naa boole li nga xamante ni moom mooy maanaam li may wax ni mooy ci li alquran jàngale li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñun waxuñu ci wàllum lasraar waxuñ ci loolu loolu yitteeluñu waaye li nga xamante ni moom mooy nature maanaam nit mën ngaa bañ a bokk moom tabia ba pare du tee and ànd suuf sii ngay gis tabiyaam bokkut ak tabiyaam jant jant bi mais and nañ motax jant bi suuf si di daw di ko wër tabiyaam bi nga xamanteni moy tabian tabiyaam weer wi bokkut ak tabiyaam suuf si waye and nañ motax nga gis wër wi motax nga gis wër wi ni di daw di wër li nga xamanteni mom moy suuf si kon ay tabiya man nañu baña bokku ba pare du tee ñu and kon yeneen yi ci noonu lay jeexantalee ci doomu aadama moo tax suñu doon di wax ne wasamaa yi daatil buruj asamaan si ay burju moom moo fi nekk kon li yàlla bind lépp bind ko ci noonu tabiya nag ak nature xam nga nature tabiya moom mooy natiir français moo koy wax nature anglais di ko wax nature maanaam tabiya moom mooy natiir rek natiir nag noonu nga xamante ni noonu la ko suñu borom bindee defee ko noonu ci xel mi nga xamante ni moom la suñu borom defal doomu aadama mën naa def ay pexe ba soppi li nga xamante ni moom mooy nature ndax boo xoolee doomu aadama yur gi ko suñu borom subhanahu wa taala defal xel mi ko suñu borom taala defal li ne ci boppam ci ay secteur li ne ci yur gi ci ay fepp nga xamante ne ay milliards milliards milliards fepp la li ci doomu aadama jëfandikoo gun rek 5 fepp lay toll te loo gis ci àdduna mu am fi. cinq fépp yooyu moom moo ko def ci àdduna kon nag bu fekkoon ne suñ borom taala def na doomu aadama mën a jëfandikoo maanaam téeméeri fépp ci ay ci fépp yi nga xam moo ne ci xelam kon boobaal la nag naka la doomu aadama di mën a lan la doomu aadama def ci kaw suuf doomu aadama li mu defagun ci kaw suuf rek ci loo xam ne ay pexeem la te loolu suñ borom kàttanal ko ci gis nga lim doy waaree te loolu juróomi fépp képp ci xelum doomu aadama moo ko defagun kon ana kon su doomu aadama eggoon ci mën a jëfandikoo téeméeri fepp ci biir xelam kon yàlla kon ku ku yéeme la moo tax bi mu bindee li nga xamante moom mooy xel maanaam dana ko doxal dem xel daal di dox dem mu ne ko doxal dikk xel dox daal di dikkaat mu ne ko yow day binduma lu la gën a màgg nga xam doomu aadama xel moomu ci la rawee baaxima yi baaxima yi am nañ ay xel waaye nag dañoo amul xelum mi doomu aadama maanaam am waaye am nañu xel ndax doomu aadama yi moom mu sayar lañ maam baaxima yi baaxima yi moom mu sayar lañ waaye nag doomu aadama mu xayar la waaw baaxima yi moom dañ leen di doxal noonu rek mu ngi mel ni nga yore sa commande di di di di ko kii di ko doxal tele bi moom yaa koy doxal nga xamante ni ci loo ko doxal jëm rek loo jàpp rek mu indi loolu waaye doomu aadama nag moom mu xayar la dañ koo joxum xel ngir muy mën di tànn xel moomu nag ci la gën a kawee li nga xamante ni mooy baaxim yi kon loolu ay ay ay ay teraanga la yu suñ borom defal ki nga xamante ni moom mooy doomu aadama xel moomu nag moo tax doomu aadama natiir li muy doy waar doy waar fi ne natiir nii lu doy waar la waaye li muy doy waar doy waar doomu aadama fi mu toll nii mën na koo dem ci xelam jëfandikoo xelam ba man di ko maanaam contrôler fi mu toll nii nga xamante ni ngelaw lii ngay gis nii fi mu toll nii bombe atomique yi ngay gis nii ak bombe nucléaire yi li muy garaaw garaaw garaaw garaaw ak jéey ju mën a indi ci adduna li muy yéeme yéeme yéeme soppikum nature rek mën naa yàq loo xamante ni buñ booleen mboolem bombe atomique yi ne ci àdduna bombe nucléaire yëpp liñ mën a yàq ci àdduna benn seconde bu nature soppi rek lam mën a yàq maanaam yooyu buñ ko boole woon yëpp taandoo ko ci benn heure ci benn seconde maanaam mënuñoo yàq sax xaaj bi xaajaatam kon nature dafa doy waar tey day soppiku te soppikum nature nag dafa mën a yàq lu bari ci àdduna masalan tey mën ngaa gis ngelaw loo xamante ni mën naa romb ci barab ngelaw lu lu am doole romb ci barab dangay gis dëkk bu mën naa romb ci dëkk yàq fa loo xamante ni. maanaam kenn mun laa wax nu muy toll ndax ngelaw suñ borom a ko bind jox ko doole ji nga xamante ni moom la am léegi-léegi nag nature bi nga xamante ni moom tabiyaam ngelaw gi léeg-léeg mën naa soppiku yàq loo xamante ni ci àdduna kenn mun laa wax nu mu toll tax ngay gis li ñu bu ñu wax li nga xam moom la ñu wax la ñuy wax hurricane nga xam léegi-léegi fi na loolu bu amee li muy yàq ci maanaam ci àdduna bi kenn mun laa wax nu mu toll niki noonu giij gi suñu borom moo ko bind ba pare taxawal ko fi mu ko taxawloo nga xamante ni secret bi tax géej gi taxaw fi mu taxaw déplacé wut secret boobu suñ borom mu ko def ci maanaam weer wi nga xam weer wee na ko téye moo ko téye foofu mu nekk waaye du jëmmi weer wi suñ borom a def loolu waaye nag da koy jaarale ci lim bind kon géej yi fi ñu ne tekk taxaw déplacé wuñu dugguñu ci biir dëkk bi bay mën a yàqal doomu aadama yi fi ñu taxaw. loolu secret boobu suñ borom mu ngi ko jaarale ci biir li nga xam moom mooy weer kon nati tabiya boobu nga xam ne géej gi da ko am nag léegi-léegi tabiya boobu mën naa soppiku léeg-léeg bu soppikoo nag da ngay gis jéey yi mi amal ci àdduna ndax léeg-léeg gis tabiya soppiku tabiya géej gi soppiku géej gi daal di daw dugg ci biir dëkk yi da ngay gis ndox mi kër gum romb maanaam da sempi maanaam euh, garab gu gum romb sempi nga xamante ni lu mu romb rek da koy yàq loolu baaxutoo woon loolu nekkutoon tabiyaam waaye gis nga soppi ko góob tabiya boobu rek moo tax bu duggee ci biir dëkk mën naa yàq dëkk bépp kon tabiya ni muy soppi ko dafay jeexental ci dunduk doomu aadama dafay jeexental ci itam ci jëmmi doomu aadama kon loo gis ci àdduna rek ci mboolem maanaam li nga xam doomu aadama da koy defar ci ay bomb ak yu mel noonu lu ñu mën a yàq ci àdduna rek tabiha ak soppikum mën naa yàq lu gën a rëy loolu fi ñu toll nii kon mu ngi noonu waaye loolu nag tabiha nature li muy doy waar doy waar doomu aadama def na ci ay pexeem ba mën koo soppi waxoon naa ne faslu yi ngay gis nii yëpp suñ boom da leen bind ci tabiha faslu yëpp. waaw faslu sitaay faslu xarif faslu rabia yaa ngi dégg yooyu yëpp faslu yooyu yëpp suñu boroom daf leen a bind ci tabia léegi-léegi mën naa sedd ñu nekk ci période sedd loolu mooy tabia jamono boobu mooy nature bi jamono bi jamono ji loolu mooy tabia bi ñu nekk lii tabia jamono jooju mooy dafa sedd seddaay boobu nag suñ borom defal na xel doomu aadama bam mën a maanaam defar loo xamante ni jamono ji dafa seddoon néeg bi dafa seddoon mu daal di koy soppi def ko ba mu tàng defar surface boo xamante ni day mën a tàngal néeg bi mën nañoo nekk ci période boo xamante ni période tàng la suñ borom defal na xel doomu aadama ba mën a def ay loo xamante ni maanaam clim yoo xamante ni dafay seddal néeg bi foofu doomu aadama nag jaar ba mën a defar loo xamante ni day seddal defar loo xam day tàngal foofu la mën a jaar ba contrôle yi nga xamante ni moom mooy nature loolu nag suñ borom moom moo ko ci kàttanal kon loolu suñ borom li mu bind lépp ba mu koy bind doomu aadama tax moo tax léegi matuwaay yeeg jumtuwaay yëpp da koo joxaat doomu aadama xamal ko li nga xamante ni noonu la koy jëfandikoo ndax masalan tey buy taw taw moom mën ngaa gis muy wàcc yàq loo xamante ni inondation am yàq loo xamante ni ci dëkk bi kenn mënu la ko wax nit ñi duñ amate ñu tëdd. ndax kër yi day fees dell ak ndox yàlla mën nañu wax ne ah comme daal lu tax yàlla daal di wàcce lii maanaam ndox mi di mel ni daal yàlla dafa bind loo xamante ni luy yàq diir yàlla bindul luy yàq yàlla li bind lépp luy jariñ doomu aadama waaye nag bi mu ko bindee ba pare daf koo joxaat doomu aadama xamalaat ko ni nga xamante ni noonu lay def ba man koo jëfandikoo te du ko lor waaw waaye nag suñ borom moom bi wàcce ndox moom day wàcc rek doomu aadama bi tamit loolu tamit am na part de ci euh, amoon am na ci responsabilité mooy yow booy dëkk da ngay xool yow fu ngay dëkk ndax palaasum ndox la wala du palaasum ndox waaye nag boo demee foo xamante ni palaasum ndox la nga dëkk fa kon bu fekkee dafa taw taw bi daal di jël sa kër soo bàyyoo tamit am nga ci responsabilité bu ko defee tamit kon yàlla di fut luy lor doomu aadama waaye doomu aadama ci boppam ci ay pexeem mën naa def ba def lu koy lor motax suñ borom ne zahara al fi al barri wal bahri bima kasabat aydi naas ak jiiri ji ak jaww ji ak géej ji ak yàqute feñ na ci waaye loolu lépp ci loxol doomu adama ci la bayiko kon mu ngi non kon doomu adama fi meuna jaar ba defar luy tàngal defar luy seddal fofu la meuna jaarit ba contrôler li nga xamanteni moy jimmi natir lolou pexey yoy suñ borom subhanahu wa taala defal nako ko doomu kon ni ma leerle woon xamal ne tabiya di muy jeexantale ci doomu aadama maanaam ma waxoon ne ba ci sa waajur sa baay ak sa yaay dañuy jeexantal ci yow waaye jeexantal googu ñuy jeexantal ci yow ñoom doonul ne ñoom seen jëmmi bopp loola ne ci ñoom ñoo ko def ci ñoom ba ñuy mën di jeexantal ñoo ko def seen ba ñuy mën di jeexantal ci yow déedéet yàlla ci boppam moo def loolu ci say waajur ñuy man di jeexantal ci yow kon ñi nga xam ne dañoo jàpp ne nature moom. dafa jékki-jékki rek amal boppam ñu dem ba bëgg a jàpp ne nature kat waaw moom moo amal li am lii lépp loola nature defu ci dara nature nekkul ne dafa taxaw ne di amal boppam di soppandikul boppam ci mbir yi déedéet yàlla moom moo amal nature ba pare ko soppi moo tax scientifique gi philosophie daanu ci yooyu waaye natiir moom yàllaa ko amal sàkk ko muy jeexantal ci dunduk doomu aadama di jeexantal ci nii ñu dundee ñun fi mu toll kon ni doomu aadama yi ni seen jëmmi bopp ku ci nekk lay sa tabiya léegi léegi day jeexantal ci sa moroomu doomu aadama tamit fi mu toll nii masalan tey mu gën a leer mooy yonente bi sallallahu alayhi wa daf daan aaye ne jigéen goo xamante ni dafa taqali ko ak xelam bu leen koy jox seen doom mu di ko nàmpal li tax mu wax loolu mooy jigéen goo nga xamante ni dafa taqali ko ak xelam. li nga xamante ni moom mooy tabiyaam saa boo ko joxee sa doom mu nàmpal ko rek dafay daal di jeexental tabiyaam da koy wàll ki nga xam moom mooy sa doom ndax li jël xelam fëkk xelam ba ënta xelam nga xamante ni tàqali ko naa xelam bokkutul ci masalan masalan ñoo xam ne dañ leen di classé ñu nite loola ma ngay daw ci xelam di daw ci biir ay siditam jaxasoo ak deretam loola bu nàmpalee sa doom faaw mu jeexental ci dom jim nampal motax tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ne la tastardau alhamqa manam ñi nga xamanteni dañoo manam seen xel anu ñok seen xel bu len leen jox seen dom ñu di ko nàmpal mooy kooku tabiyaam dafay mën a ci sa dom bu ko nàmpalee kon manam da nga gis ko xamanteni sax febar bi nga xamanteni mom lay juddu walé man nga gis ni ko am day juddu febar bi mi am mu ngi ko jëlee ci ay waajuram ñoo ko wàlle kon waajuram ñu ngi jeexantal foofu ndax léegi am na feebar yoo xamante ni mën naa dal diggante waajur yi mën na cee nekk doom ñu ànd doom sosu ca bu ca doom sosoo nag feebar boobu dañ koy transfert mu jëm mu doom ji tam da ciy jël am ci kon gis nga loolu ñoom seen tabian nim ñëwee jeexantal ci doom ci doom ju nikk ci woon dara moo tax yonte bi sallallahu alayhi wasallam doon aay lu mel noonu laa tastardaw alxamqa waaw niki noonu tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne xay taxayyaru li nutafikum fa innal irqa dasaasun maanaam comme day wàlle bu kenn nàmpale sa doom faaw mu daal ko koy mu daal di koy euh, maanaam transfert faaw mu jël ci mu jël ci moo tax man ngaa gis ci doomu aadama koo xamante ni mën naa am benn façon melokaan woo xamante ni dafay yéem ñëpp ba nit ñi naan ko yow day maanaam jaaxal nga ñu melokaan wii nga mel xaw koo ci koo ko donnee doonee woo ko sa baay doonee woo ko sa maam doonee woo ko sa yaay ndax ñoom day ñu baax lañ waaye yow nga ji juddu rek yoru jikko ji nga yor xawma foo ko jëlee fekk loola taxoon yonte bi naan taxayaru di nuta fikum fa inna al irqa tasaasun mën ngaa am doom joo xamante ni jikko ji mu yor doonneewu ko ci baayam doonneewu ko ci yaayam doonneewu ko ci ci ay maamam waaye nag boo toppee càllare gi danga fekk kenn ci ay maamam ku meloon melokaan woowu waaye nag loola dafay rawaan day raw di raw di raw ba egsi ci moom ndax saako ceeb bii boo ci sotti woon ndox ca kaw mu commencé ci kaw da ngay gis ni muy ruugi la di jëm ci suuf nga xam day sar rek di jëm ci suuf mën naa laal ca kaw ba ca suuf ba fépp ba ca suuf sax day egsi ci moom kon man ngaa gis nit mu yore melokaan woo xamante ni melokaan wi jileewu ko ci ay juróom waaye nag buñ toppee càllale ga fa mu jugee faaw di nga ko fekk kenn ci ay askanam fekk ko ci kenn ci ay maamam moo tax wala baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi alxabisaatu lil xabisiina wal xabisuun lil xabisaati wa tayibaatu li tayibiin wa tayiboon li tayibaat moo tax fi nga xamante fa ngay denc sa jiwu lu mat a la lu mat a la lu mat a xel la ki nga xamante dafay wut soxna na xool soxna si muy wut soxna su baax ndax maanaam suuf si moom loo fi ji looloo fay génn tabian dafay jeexantal ci lu wér amut sikk amut sikk dafay jéexantal ci lu wér moo tax booy jël soxna xoolal soxna si ngay jël booy am borom kër xoolal borom kër bi ngay am ndax ki nga am lay tabiyaam faaw dina ko ko wàll bu ngeen amee doom rek loolo mën na ko wàll moo tax léegi tey jii fi toll nii boo amoon masalan tey ñaar ñoo xam dañuy ànd kenn ki am ci jikko ju ñaaw wala mu am masalan tey mel melokaan woo xamante ni waliyaas billahi taala su amee doom doom ja mën na caa jël te ciy jël dama la waxee woon léegi ne la nit mën nga koo gis mu juddu am façon feebar boo xam da koy dal te jëlee ko ci kenn ci ay waajuram kon tabiha dafay jeexantal moo tax nit booy tànn soxna tànnal ku baax moo tax léegi boo ci amee rek doom rek doom ji nekk lu baax ndax suñ borom nee na wala baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi suuf si moom li fi ji rek moom moo fiy génn boo fekkee suuf si ji fa loola fa ji rek moom mooy génn fi mu toll kon mu ngi noonu gën naa xóot loolu yonent bi sallallahu alayhi doon na aaye na Aliou na ko bul ànd ak mukk sa soxna ci weeru ci guddik tabaski wala guddi korite maanaam guddi korite wala guddi tabaski bul ci ànd ak sa soxna xam nga loolu waxuñu ne dafa xaraam maanaam nisaakum xarsul lakum fa'tu xarsakum wa anna shi'tum jigéen ñi seeni tool lañ maanaam waxtu wala neex rek mën nga leen a dikkal ba mu des ci ay barab yoo xamante ni lislaam da koo aaye mooy masalante mel ni dafay gis reegal wala mu mel ni kuy gers deretu wasin yaa ngi digi ci jamono yooyu wala ci maanaam moom ngay ànd ak moom ci place boo xamante ni suñ borom aay na ko lu mel ne ginnaaw yooyu noonu suñ borom da ko aay ba mu des yooyu ñu génne settee ko yi ci des yëpp suñ borom na la ko waaye yonente bi sa alayhi wasallam bu waxee Seydina Aliou na ko na na nga moytandiku ba bul ànd ak sa soxna ci guddi korite wala guddi tabaski wala ngay ànd ak moom ci lu mel nànd fay loo xam foo xam dara maanaam tinu leen li ko waral mooy nature bi composé jamono jooju dafay jeexantal ci doomu aadama yi nature bi composé jamono ju ne ak nature ba muy composé ko tabiya ba muy composé ko loolu bu ngeen ci siyee bu doom soqi koo rek mën naa jeexantal ci doomu aadama ci doom doom ji nga am tey tabaski bu jotee jamono ji liy tabiya doomu aadama yi mooy ñu wutum xar rey ko nga xamante ni loolu doomu aadama du koy yëg muy daw ci xelam ñëpp ko yëgandoo ku ne sam xel sa bëgg-bëgg mooy wutum xar rey ko tuur deret loolu day ne ci doomu aadama yi di daw ci seen xel sectiru doomu aadama yëpp di ko yëg muy daw ci ay siditam jaxasoo ak deretam moo tax boo ci sëyee am ci doom doom ja ngir mu nekk ab criminel reykatu nit tuurkatu deret dafay yomb ndax tabiya ab jamono jooju mën naa jeexantal ci moom looloo tax yonte bi sallallahu alayhi doon ko aaye si naa kon mu ngi noonu kon tabiya lu wér la jeexantal gi muy jeexantal ci doomu adama lu wér la waaye nag ñu xam ne lu tabiha bi waaye nag suñu boroom la subhaanahu wa taala moom mooy jeexantal noonu ci tabiha kon muy ngi noonu moo tax boroom xam-xam yi daan aay jigéen goo xamante ni dafa mer di nàmpal ndax jigéen bu meree daal di nàmpal lii tabihaam ci jamono jooju mën na koo jox doom ji mën na cee jël moo tax ñu daan aaye bu jigéen mere di nàmpal ndax tabiyaam lii tabiyaam ci jamono jooju mën na ko waal doom ji waaw ah, nga xamante ni moo tax jigéen ñi tamit war di ko ndax da ngay gis koo xamante ni mën naa am doom joo xamante ni soo mañ leen di nàmpale ay biberon ci ay butéel rek lañ koy def mooy biberon yi jox ko doom ji muy nàmp xamoo soow mi soowam lan la ak fan la jugee te mim nàmp ca lam jugee lay tabiyaam loola mën naa jeexantal ci doom ji motax tax ma nga gis ko juddu am jikko jo xamanteni daf la daf la yim fum ko jele melni ni rek di fadde rek mbolim jikko yu ñaaw yep danga ko gis ci mom fekk sooma lu mata xel motax nit dafa di gorgolu ba bo amé sa dom li koy nampal na jóge ci yow ndax li tabiya fam la koy nàmpale rek loolu da cey jeexantal ca biir dom ci motax yoy yep di maddi di di maddi di xel motax ni ma la ci misaalaat ba tey ci jeexintalu tabia mën ngaa gis koo xamante ni Afrique ñun ñi dëkk Afrique maa miin nañu tàngoor waaye tey fi doon ñi dëkk orop moom sedd lañu miin nga xam loolu moom tabia jàmm seen dëkkuwaay seen nature mooy dafay sedd ñun suñu tabia suñu nature ci Afrique mooy lu ci ëpp day tàng daanaka li muy sedd bëriwut léegi nag tey nit bu jugee woon fii dem Europe dugg ci sedd bi faaw balaa dana am diir ngir mën a adapté wu ci natiiru jamono ju foofu na mu nekk. niki noonu tamit ku jóge woon Europe tamit ñëw Afrique faaw mu amub diir ngir mën natiir adapté wu ci loolu moo tax léeg-léeg nga gis nit ñi nga xam dañuy faral di tukki dem fee ba mu yàgg ñu dikkaat ci Afrique wala ñu jóge Afrique demaat fee léeg-léegi ay feebar da leen di dal. mooy ay feebar yoo xam ne da leen di faral mooy soppiku natiir bi soppiku tabiya bi dafa leen di jeexantal ci ñoom ñuy faral am ay feebar léeg-léegi bu sedd bi duggee da ngay gis ñoo xam ne dañuy faral di feebar rek dañuy faral di feebar rek te am na ñoo xamante ni bu sedd bi duggee du leen def dara am ñoo xam tàngooru dikkee ci la ñuy feebar rek te am ñoo xamante du leen def dara ci war tàngoor kon nature dafay jeexantal ci doomu aadama loolu yàlla moo ko tërlee noonu ngir mu gën a leer rek ca la ma doon leeral ci waxtaanoo kon tabian buñ la waxee ne burj yi dafay jeexantal burj yi suñu borom a leen bind ñuy jeexantal ci doomu aadama yi man ngaa fekk ñoo xam te ñu benn buruj ba pare tamit seen i mbir ñu mën a ànd boo leen bokkee buruj nag moom 100% lay doon mi abil mi da ngeen di dëppoo kon yàlla moom moo tëralee mbir yu noonu mais doomu aadama du ci dala kon loolu mooy liñ bëggoon a leeral ci tabia gën na ko yaatu waaye nag euh, foofu lañ ciy leeral dugg nag ci li nga xamante ni mooy xéewal yi nga xamante ni ñun war nañ ci di xalaat te suñu borom defal ñu ko fii ci àdduna mooy xéwal yu mag yu kawe yoo xamante ni yàlla moo ko defal doomu aadama ndax suñu borom nee na wala xadd karam naa ba nii aadama suñ borom moo bind doomu aadama waaye nag daf koo teral suñu borom subhaana wa taala ñun dañoo nekkoon ay ruux yoo xam dañoo nekkoon ci aras doon fa jaamu suñ borom doon ko fa sàbbar bañ ñoo xamante ni def nañ fa njuumte suñu borom daan ñu fay jële dañ waa ah, am naa barab boo xamante ni kat ngi tudd suuf. maanaam dinaa leen fa yóbbu bu ngeen fa demee dekk fa nag samay ndigal di bàyyi def samay ndigal di bàyyi samay tere dinaa leen indiwaat ci barab bi ngeen nekk suñu borom subhaanahu wa taala daan ñu fi wàtte wàcce fii ci àdduna yàlla nag bi ñu wàccee fii ci àdduna bàyyiwuñu ndax doomu aadama dana soxlawoo lum dundee fii ci àdduna ngir mën a jaamu yàlla ngir mën koo sàbbal suñu borom lépp luñ soxla ci àdduna defal nañu ko fii ci àdduna kon bu nit ñi dee jaaxle mbaa ñu amul lu ñu lekk amuñu naan loola du suñ borom waaye say morom doom adam képp ñolo ko tek ah doom adam ni say morom ñolay sonal jafé jafé bo gis nit ñi diko dund fi ci aduna nañ xamné suñ borom teguñu ko waye doom adam yi ñooñu ko tek ah doom adam ci bop moñ ko tek na suñ borom aduna dal di rap mata suñ borom ne wa huwa allazi anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha suñ borom mo sos aduna waaye nag bi mu ko sosee pare daf caa def lépp loo xamante ni mooy tax doomu aadama ak dund mën a jakk fii ci àdduna moo tax suñu borom waa aateekum min kulli ma sa'altumuhu mboolem lu ngeen xamante ni soxla woo ngeen ko yitte woo ngeen seen dund rek jox naa ko ba mu mat sëkk suñ borom subhaanahu wa taala wàcce doomu aadama ci kaw suuf defal ko fi ay xeet xeeti gàncax yi meññit yoo xam dana koy may mën a jëfandikoo nga xamante ni loolu liñ ci gis nga xamante ni xëy na sa ëpp na ko ñetti téeméeri junni façon yi xeeti meññex meññeet yoo xamante ni suñ borom defal na ko doomu aadama fii ci kaw àdduna ngir rek sant ko lenn du dul wa maa xalaxtul jinna wal insa illa li yaabudu defuma fi loolu lépp lu dul ngeen jaamu ma loolu képp laa indi di sant santuma leen dara suñ borom wàcceel ko fii ci àdduna ndox moo xam ne dana koy mën a yittewoo suuf suñu borom tàllal ko yaatalal ko ko ba mu yaatu lool ba lim fi bëgg lépp mën koo am suñu borom yaatuwaayu nga xamante ni mu ngi toll ci science ñu ngi koy natt cinq cent cinquante millions kilomètres carrés mu yaatuwaayu suuf si ñu nekk planète bi ñu nekk suñu borom boo xoolee suuf si li fi nekk lépp suñ borom doomu aadama la ko defal nga xamante ni quatre-vingt pour cent yëpp ndox la suñu borom dafa bind doomu aadama ci ndox wa huwa allazi xalaqakum minal maa'i basharan suñu borom dafa ñu bind ci ndox aduna boo xoolee li fi nekk lépp. maanaam cinq cent cinquante million kilomètres carrés yooyu yëpp quatre vingt pour cent yëpp ndox la pour cent yi mooy li ci doomu aadama dëkk te pour cent yooyu sax maanaam doomu aadama yi du doomu aadama yi képp njaay àll yeeg rab yeeg yëpp fi lañ dëkk jinne yi sax ci lañ nekk waaw doomu aadama yi ci lañ nekk waaw nga xamante ni yëmu ci vingt pour cent yi da nga ci fekk maanaam dëkk yoo xamante ni mu ngi toll ci ëpp na ñaar téeméeri dëkk yoo xam ne dañ ko aw suuf soosu cinq continent nekk ci suñ borom tamit def ci li nga xamante ni mooy ay xeeti ndox ay xeeti géej géej yu rëy nga xamante ni juróomi géej yi nga xam ñoo gën a rëy ci àdduna ñu ngi koy wax maanaam masalan tey al muhiitul haadi al muhiitul atlasi al muhiitul hindi al muhiitul mutajamid al janubi al muhiitu al mutajamid asimali ku ci nekk am na yaatuwaay waaye mën nañ cee jaar rek ci nekk sab yaatuwaay mu gaaw nga xamante ni masalan tey al muhitul haadi ab yaatuwaayam mu ngi toll ci cent soixante huit millions sept vingt trois mille kilomètres carrés mooy yaatuwaayam mooy géej gi gën a rëy ci àdduna muhitul haadi li nga xamante ni mooy ab xóotaayam mu ngi toll ci euh, trois mille neuf cent soixante dix ci ab xóotaay kon loolu xóot la kon ba ci topp mooy almuhiitu atlasi moo jaar dakaar ak yeneen dëkk yu ci bëri jaar na fa moom ab yaatuwaayam mu ngi toll ci quatre-vingt-cinq millions cent trente mille kilomètres carrés kon loolu tamit lu yaatula ba léegi ab xóotaayam mu ngi toll ci huit mille trois cent quatre ci xóotaay ci suuf kon loolu tamit lu yaatu la ba léegi almuhiitul hindi li nga xam mooy ab yaatuwaayam mu ngi toll ci euh, soixante-dix millions cinq cent soixante mille kilomètres carré loolu tamit kenn xamut ab yaatuwaay mu toll kon loolu yaatu la ni nga noon tamit xuutaayam ci suuf ci ay mètres mu ngi toll ci sept mille quatre cent cinquante ci xuutaay ni ki noonu tam ba ca topp mooy al mu al muhiitu al mutajammid al janubi nga xamante ni géej la goo xamante ni nees rek la dafa glacé nga xamante ni yaatuwaay mu ngi toll ci vingt et un cent soixante mille kilomètres carrés ba tey tamit loolu lu yaatu la ab xóotaayam ci suuf toll ci trois mille deux cent soixante dix mètres ci xóotaay ci suuf ba ca mujj di almut almuhiitul euh, almutajamit ashimali nga xam mu ngi nekkee ci càmmoñu suuf si géej googu tamit ba tey nees dong la nga xamante ni moom yaatuwaay mu ngi toll ci quinze millions cinquante huit mille kilomètres carrés mooy yaatuwaayam ab gudd ab xóotaayam toll ci onze mille deux cent cinq ci mètre ci ay xóotaay kon tamit loolu da ngay xam ne yooyu it yaatu la loolu lépp nag suñ borom da ko fay def defal ko fi doomu aadama kon doomu aadama suñu borom daf ko wàcc ci àdduna ngir nam mu dundee àdduna dën maam dëkk ci adduna maam dundee ko fi mu toll nii suuf soo suñu borom denc ci tamit li nga xamante ni moom mooy xeetu wurus xeetu xaalis. maanaam denc ci tamit ay weñ yoo xam ne doomu aadama daf koy mën a jëfandikoo suñ borom ne wa ansalna al xadiida fiihi ba'sun sadidun wa manaafiu linnaas suñ borom nee na ma wàccee leen fi li nga xamante ni mooy ay weñ yoo xamante ni da ngeen koy jëfandikoo nga xamante ni nii nga xamante ni noonu la suñ borom di wàccee taw bi muy wàcc ci àdduna bi noonu la fi tamit borom di wàccee li nga xamante ni mooy weñ yooy noonu waaye nag doomu aadama mun cee teg bët waye suñ bam neena wa anzalna al hadid fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas yàlla bayu dara yàlla kum bind joxna la loy aro sa bop suuf si suñ borom bind joxna ko lu muy bopam motax li nga xamanteni moy asteroid asteroid dañu wax asteroid manam muy xeer yi nga xamanteni ni ñoo ne ci kaw suuf si ci jaww ji mënuñoo naaw mbëkk suuf si wala ñu dal ci kawam motax mboolem li yàlla bind ñu ne ci jaww ji di naaw dara munu cee mbëkk suuf dara mun cee naaw dal ci kaw suuf ndax bu boobaa kon loolu mën naa indi jiw yi ci àdduna joo xamante ni doomu yi mën nañ caa jaaree faatu ci ndax xeer yooyu yu rëy lañ yoo xamante ni am na ci yoo xamante ni sax ñoo ëpp Sénégal am na ci yoo xamante ni fi mu toll nii Amérique li muy rëy rëy rëy maanaam ñoo ëpp Amérique yëpp waaye ci yërmande suñu borom subhaanahu wa taala mu defal suuf si. levier boo xamante ni maanaam lépp loo xamante ni jum na ko ba nar koo mbëkk nga xam tey bu ko mbëkkoon mën naa indi fii jéey ju rëy ci fii ci àdduna levier boobu moo koy défendre génnewaat ko ci biti. waaye ni mu ko defalee levier nag noonu la ko solalaatee meneen mbubb moo xam moo koy défendre tamit ba léegi kon yàlla yërëm na doomu aadama te yàlla bëgg na doomu aadama moo tax doomu aadama bu sëntul boromam rek dafa gore di waaye lépp tax na mu mën a dund fii ci àdduna dundin wu wu amul wenn jafe-jafe suñ borom def na ko saytaane kay moo fi nekk bëgg ñoo làq yërmande yàlla ji rek bëgg ñoo làq li nga xamante ni mooy mbëggeelu yàlla gi rek di ñu won loo xamante ni teguwut fenn te ay wor képp ci la tegu waaye yàlla mi nga xam moo ñu bind moom ñu bu ko sooboon mu teg ñu mbugal mu metti bu ko sooboon mu ñuy bund xataa chaque jour te kenn mënu ci tus kenn du ci man dara aduna dong boo fi nekkee kenn nar laa sonal da dem police déclaré ko wala ñu mbir yi ñu jug ci moom waaye tey yàlla mi ñu bind mënoonoo jëfandikoo ci suñu kaw lu ko soob te def ko te bu ko defoon amul fenn foo koy jàmbatee waaye mu feeñal yërmande ju mat sëkk adduna bi su neexoon suñu borom li nekk ci kaw jaww ji nga xamante ni ci ay xeeti ay xeer palaane yi suñu borom tegal leen nisaam bu ñuy jaar ba adduna bi benn ci xeer yi du naaw mbëkk ko tey bu sooboon suñu borom chaque jour fu ñu toll yaa ngi dégg lu koy mbëkk ak di ko nga xamante ni suuf si di jaxasoo waaye loolu lépp ci yërmande yàlla mu musal ñu kon yàlla doomu aadama bu ko sëntuwul dafa goree di waaye yàlla moom bëgg na doomu aadama te mbëggeelam gi feeñ na foo ko xool gis ko suñ borom nee na tamit loolu ma def ci àdduna yëpp gratuite laa ko def fayikooku ma leen ci dara courant bii ñuy jëfandikoo suñ borom defal ñu ko muy bàyyi ko ci jant bi loolu suñ borom nee na gratuite oxygène bi ñuy noy suñ borom nee na gratuite ndox mi sax maa leen ko fi wàcceel gratuite waaye na léegi lan moo tax doomu aadama yi am ci ñoo xamante ni daal daal di bëgg aaki moo loolu yàlla def defal ko doomu aadama yi ci gratuite am ci ñoo xamante ne ñëw na aaki moo ko ku ci nekk na maa moom nangam nga xam dañ lay facturer ci courant bi ngay jëfandikoo te yàlla ko fa wàcce ne maa leen ko jox gratuite ñu jëlee ñu dagg ko ndox mii ngay jëfandikoo suñ borom ne maa leen fi wàccil ay géej yu yu rëy def ko gratuite waaye nag léegi ñu dina dagg ndox ay facture nga xamante ni yàlla adduna def na fi lu doy sëkk. loo xamante ni jërutoon nit ñi di sonn ci kaw suuf waaye ni ko nit ñi séddalee foofu mooy problème bi ndax suñ borom bi mu defee géej yi ba pare yëmul ci loolu daf ne waa wa ansalna minas samaa'i maa'an tahuuran batay ma len di wacce laat menen ndox mo xamanteni bokku bokkut geejji asaman la ko lay jugge mu nek ndox mu laab mu ngi man di jefandiko yëmu ca de mu ne wa anzalna min as-samaa'i maa'an bi khadrin fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi la khadirun suñ boobu ne nak ma wacce laat menen ndox mo xamanteni ni ndox mu neex lay doon dëkkal ko ci suuf boo gasse sa teñ jek jek rek daj ndox mi mu nek ndox mu neex wala nga sa foras jek jek rek daj ko do xam fu mu jugee yàlla neena na maa fi def fa askanahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi la xaadirun su ma neexoon ma jele ko fi ndax man maa ko fi def kon loolu lépp dama ko fay def ngir doomu adama man di gis xewul yoy di man di sante suñu borom ndax yàlla lim yor mom bëri waye do doyewu ko dara doomu adama rek la koy jox kon bu deme ndax problème bi gëna a ci aduna tay ji moy problème ndox moy problème bi gëna a ci aduna ta lii suñ borom def ci ndox ci àdduna ci géej gi ci yeneen xeeti ndox yi nga xam suñ borom daf ko fay wàcc mu ay xeeti ndox ay bëtti ndox yoo xam da ngay gas rek fekk ko ci suuf li ci yàlla def buñ ko doon séddale par doomu aadama la benn par benn di ko séddale doomu aadama yi ku ci nekk mën nga ci am ci luy toll ci géej guy toll ni almuhitul haadi nga xam mooy géej gëna a ci adduna kon bu dem bu demee ba doomu aadama ni ñàkk lum naan xamante ni day jékki-jékki dem ba egg ci jamono joo xamante ni nit dafay mar ba tuur ndox jëlaat ndox ma di ko naanaat ngir sonn amul lum naan yaa ngi dégg kon nga dikk ci dëkk yoo xamante ni da ngay gis ñoo xam dañuy rooti sonn duñ mën am ndox muy jëfandikoo duñ mën am ndox muy togg te yàlla def lu doy sëkk ci kaw suuf kon loolu doomu aadama ci boppam ni muy dundee ci kaw suuf moom mooy yàq ci kaw suuf waaye yàlla def na fi lu doy sëkk ci ndox def na fi lu doy sëkk ci koom te loolu lépp gratuit la ko def gratuit yàlla lim denc ci suuf ci wàllu wurus deñ ko ci suuf ci wàllu xaalis denc ko ci suuf ci wàllu ay jamaa buñ ko doon séddale doomu aadama ku ci nekk ay milliards et milliards nga ci am par par doomu aadama waaye ay nit ñëw jël ko aaki ko moom ko ba nit ñi am ñoo xam dañu egg ci ñàkk foo xam ne dañuy dem ba mujj faatu daf leen di gënal ndax jàpp ne ni ñuy dundee am na ñoo xam sax tëlatuñ jaamu yàlla ndax lan coono yi ñu dund amuñu luñ lekk amuñu luñ naan yi nañu xam ne ñoom yàlla tegu leen loolu seen moromi doomu aadama ñoo leen teg loolu waaye yàlla ba muy jox moom ñëpp la jox kon buñ jël mbir yi rek lu am rekk ñu jël ko sànni ko ne yàlla dogal bi yàlla yàlla li mu wax leer na zahara al fasaadu fil barri wal bahri bi ma kasabat aydi naas waaye nag waxoon nañu bu yàgg nañ comme nag fexe ngeen ba yàq suuf si fexe ngeen ba yàq jiir ji fexe ngeen ba yàq jaww ji wa ma asaabakum min musibatin bi ma kasabat ay jiikum lu ngeen fi def rek musiba bu ngeen fi def ci àdduna rek yéen a koy souffriraat waaw waaye na yàlla bindoon mbir yi buñ ko bàyyi woon noonu rek jafe-jafe du am jafe bii ñu yàq nga xamante ni doomu aadama yi ñu ngi defar ay ay ay ay usines yoo xam ne li muy lakk ci pétrole ak saxaar si muy génne muy dem ci jaww ji yàq nañ nature bi jaww ji dafa fees dell ak ay ay virus waaye tàngooru jant bi moom moo ko doon moom moo ko doon rey bu ñu fexee nag ba yàq lii tiiru jaww ji soobaa ay virus dana bëri ci àdduna moo tax virus bu ne ngay gis ci àdduna tàngooru suuf si machines yi ñuy defar usines yi ñuy defar muy lakk ay pétrole di lakk ay gaz yoo xamante ni muy dem ci jaww ji di yàq loolu mën naa tax tàngooru suuf si mën naa jóge ci fi mu nekkoon di gën di yokk jamono ji mu ngi ci 1 virgule 4 mën na yokk di gën a yokk ba egg ci foo xamante ni suuf si dafay mujj dafay tàng tàngoor woo xamante suuf si day dem ba day baxal géej gi te su boobaa doomu aadama duutu fi mën a nekk duutu fi mën a nekk te su boobaa doomu aadama moo ko teg boppam ndax yàlla jant bii mu bind li muy jox degré bi muy jox suuf si ci tàngoor lépp sax egsiwut ci yërmande yàlla bu lépp egsi woon fii doomu aadama du fi dund jiji dañuy bax doomu aadama day faatu meññeen moo fi def sax doo ko fi mën am ndax géej gi jaww ji ngay gis maanaam jant bi ngay gis li muy sànni ci degré ci tàngoor di ko jox suuf si dana dem léegi-léegi ba egg ci junni ak juróomi téeméeri degré waaye maanaam lesi bi suñ borom defal jant suuf si moom moo koy téye saa bu ko suuf maam jant bi sànnee moom moo naan ko sëkk téye bu ko téye xool li ci doomu aadama jëfandikoo nga xam te du ko lor mën na koo jëfandikoo du ko lor mu jox ko la ci des mu sànniwaat ko ci jaww ji mu génnaat loolu mën na yàlla waaye bu fekkoon ne lësee boobu amul nga xamante ni lu ko jant bi sànni rek day jàll doomu aadama du fi dund ndax fii tàngoor bi donc bu eggee 40 degré jëm kaw nit ñi dañuy bëgg a dee ku ci nekk léegi da egg ci da ngay jëfandikoo son yëri yi ngay jël xoj ko ci ndox ngir mën a dun imagine leen nag junni ak juróomi téeméeri degré yooyu yëpp bu egg si woon nu ñuy def ni ñuy def ci àdduna kon doomu aadama bu santul yàlla moom ci waxam moo goree di waaye yàlla wan na ko yërmaande war na ko mbëggeelam te feeñu na ko ci anam bu ne ngir bëgg mu gis ko waaye saytaane taxaw rek ngir ne faaw du ko gis mu ngi noonu kon yàlla feeñal na yërmaandem de feeñal na ko bu baax a baax waaw ndax noonu moo waxee woon ne yàlla wàcce na fi ndox wàcce fi ne yeneen ndox yoo xam ne am taw la wàcce fi ndox mu neex moo xam te ku gas da koy gis yàlla fàttewul benn dëkk amul dëkk boo xam yàlla da koo xam te xamul ba ca des ñee di am te ñee amuñu déedéet loolu amul fenn kon bu ñenn ñi dee souffrir ñeneen ñi souffrir ñu souffriruñ nañu xam ne seen moroomum doomu aadama moo leen ko teg waaye du yàlla ndax jant bii nga gis li muy togg ci ndox chaque minute chaque seconde doomu aadama mën nañ cee dund ba ilaa yow mi diin te jeex doomu aadama mën nañ cee dund ba ilaa yow mi diin te loolu du ma sa jeex yàlla bi mu amalee suuf sii nii waxuma kaw nu bi ndax loolu lu yàgg la kenn xamu nu mu waaye planète saw suuf si ñu tudd ñu nekk ñu koy woowee al ard planète terre bi ñu nekk ci science dañ koy nattale 4 milliards ak genn wàll bi mu amee léegi bi mu sosoog léegi booba ba léegi nag jant bi chaque maanaam segont waxuma minute de chaque seconde jant bi mu ngi togg ci ndox luy toll ci maanaam seize million ton ci par seconde maanaam fukki million ak juróom-benn tonni ndox jant bi di ko togg par seconde jaww ji dafa fees dell kom ndox kon doomu aadama bu sonnee amul lum naan doomu aadama yi nañ xam ne yàlla tigu leen ko seen moroom doomu aadama képp moo leen ko teg waaye yàlla ba muy bind lu mat sëkk la jox doomu aadama kon li fi yàlla def. dafa bëri jant bi yàlla da ko bind chaque minute muy def ay éclatement di def ay explosion yoo xamante ni li muy wiir ci énergie par seconde mën naa dundal adduna bi yëpp luy toll ci juróom fukki yoo xamante ni adduna bi kenn du fay courant kenn du fay énergie par seconde waxtuma laak ñaari seconde waxtuma laak ñetti seconde waxtuma laak waxtu waxtuma laak at te jant bi li muy produire ci at ci sa ci ci ci énergie am na biddiw yoo xam yàlla amal na leen te loola ñoo ngi koy produire ci benn seconde kon yàlla ko doy kon doomu aadama bu sonnee ci àdduna rek na xam ne moroomu doomu aadama rek moo ko teg kon li fi yàlla def doy na sëkk doomu aadama mën na fiy dund ba jóge fi te am benn jafe kon bu doomu aadama day dund jafe rek nañ xam ne moroomum doomu aadama nit ñoom moom moo leen ko teg kon ndax scientifique yi découvrir nañ planète boo xamante ni yàlla ci boppam jëmmi planète bi jamaa la ko defaree muy planète bi ñuy wax five five Cancri E planet known as a diamond planet planète boobu noonu maanaam maanaam fi mu toll nii la fa suñ borom def ci wàllu jamaa la fa suñ borom def ci wàllu or la fa suñ borom def ci wàllu wurus kenn mënu la xam toll nga xam buñ ko doon séddale doomu aadama yi. ku ne ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards la ci am doomu aadama bu ne kon yàlla def na fi lu doy sëkk yàlla def na fi lu doy sëkk te loolu doonul benn plan ay plan yi planète la yu yàlla amal kon yàlla def na fi lu tax doomu aadama mën a dund ba jógee fi te du am benn jafe-jafe ndax yàlla ni mu bë ndax loolu dafa dafa yéenuwul maanaam yàlla ni mu bëri liggéey kon bu doomu aadama mën te yàlla ne li ma yor ban doomu aadama képp laa ko jox dama an bëgg fay nekk di dund loo xam dafay sonn waaw loolu loolu yéenul maanaam kon nañ xoolaat mbir yi te xam ne yàlla moom bu la laa dama laa bind ba pare ngir nga jaama teg la mettit yoo xamante ni amoo loo lekk amoo loo naan ah loolu la sigul xam nañ na nag yàlla moom lu am moo ko amal waaye ba tey rek loxo doomu aadama génn ci ndax yàlla wax nañ ko daharal fasaada fil barri wal bahri bi maa kasaba aydi naas suuf si moom lu fi yàqu ak géej gi jiir yi doomu aadama képp la kon yàlla xamal nañu loolu bu baax ngir la xamal la tamit yaatuwaay li suñ borom bind ci kaw na bi ak li fi suñ borom def masalan tey planète yooyu ma la tuddaloon nga xamante ni diggante mag suuf si mu ngi toll ci quarante et un années lumière quarante et un light years quarante et nga xamante ni kon loolu lu lu sori la lu sori la te boo yoree sa télescope danga koy mën a gis yàlla lim kaw nu bi dafa yaatu te li fi yàlla def dafa bëri moo tax fii li leen gën a jaaxal li leen gën a yéem mooy ni suñ borom bindee kaw bi mooy li leen gën a yéem ak li fi suñ borom def te toujours maanaam dafay gën di yokk di gën di dem a wa samaa banaynaaha bi aydin wa innaa la moo musiun yàlla neen toujours dafay yokk di gën di dem rek nga xam te ngir xamal la yaatuwaayam ak soriwaayam ak digganteem ak suuf ji fi ne boo jóge woon suuf si ngir dem ci planète boobu da nga am luy toll ci ñeenti téeméeri junni at yu teg téeméer ngir mën a egg ci planète boobu si ci kaw nag ngay daw gaawaayu lumière te yàlla defagut doomu aadama mu egg ci man-manu mën a defar loo xam dana gaaw gaawaayu lumière ndax lumière dafa gaaw ndax seconde bu ne lumière mu ngi daw ci ñetti téeméeri junni kilomètres de téeméeri junni kilomètre lumière di ko daw ci ben seconde seconde bu ne lumière junni kilomètre lay daw loolu amut lu dooma adama defar lo xamanteni kawna gaway bu tol nga xamanteni minute bu ne lumière mu ngi daw 18 millions kilomètres par minute lumière mu ngi daw ci par waxtu un milliard kilomètres par waxtu lumière mu ngi daw par jour vingt six milliards kilomètres moom lay daw par jour at mi boo ko xoolee lumière di ci daw quatre vingt dix milliards quatre cent soixante cinq milliards sept cent cinquante millions trois cent soixante mille cinq cent quatre vingt ci kilomètres ci ay ci lumière ci gaawaayu lumière nga xamante ni amul lu gaaw ci àdduna ba egg ci gaawaayu lumière moo tax lumière amul lu ko gën gaaw kon yàlla kawnu bi lim fi def yaatu na te bëri na kon nañu xam ne daal yàlla wàccel nañu ci suuf lu doy sëkk jafe-jafe bu am ci àdduna nañu xam ne doomu aadama yi ñoo ko teg seen bopp waaye yàlla tegu leen ko waaw yàlla nag yàlla bay sa tool lu am yàllaa ko amal loolu moom leer na waaye nag doomu aadama dañ ci sutut moo tax suñu borom ne yéen a ngi yàq di dem rek maa ngi leen di jéggal leen baal di jëlal lu bari waaye nag musiba bu leen dar rek yéen a ko teg seen bopp wa ma asaabakum min musibatin bi ma kasabat aydikum wa yaafu an kathirin mën na maa jéggati nag waaye nag yéen a ngi yéenay tooñ seen bopp daal yéen seen jëm bopp yéenay tooñ seen bopp kon mu ngi noon kon loolu lañ bëggoon a leeral ci ñu xam ne daal yàlla ku baax la nañ xam ne tamit suñ borom jaamu ko lu am solo la jaamu ko dafay taxa kawe jaamu ko dafay taxa màgg dara màggul ba weesu di doom jaamu yàlla nit yàlla li ñuy wax naañ dana am suba dana am ëllëg loolu dëgg la bu wér péng am na ñu koy wedd nag naan waaw nit yàlla yi naan nii kat day am suba lii day am nangam ñoom li ñu xamee lu war a am suba ak nangam ki nangam ñoom dañoo xamut ndax nit logique rek dafa am loo xam ne tey masalan ma leeral la ci ci science ci science xam nga dañoo science dafay wax ne nit mën naa travel mën naa dem travel ci maanaam future ngir gis luy xew comme science na mën naa sukkandiku ci loolu ngir xam loo xam ne dafay xew ëllëg ah léegi que nag ñi nga xam ne ñoo jaam yàlla ba am cër ci yàlla yàlla kay <laughs> moom mën na leen xamal luy am ëllëg mën na leen ko xamal ndax ci science comme science nee na nit mën naa travel ci future kon nag su science mané def loolu tay fiñ tool ni nit yàlla yi nga xamné yo jaamu yàlla ba egg fenn ci yàlla yàlla xamal leen li xew ëlëk ñu lokay xibaar bu ci weet dara luy am la ndax tay ji masa ni ma la koy misaalee xam nga tay planète bi ñi wax siara najmu siara planète bobu non nee won ben waxtu ci najmu siara mu ngi tollok juróom-ñaar fukki at ci adduna maam juróom-ñaar fukki at ci àdduna boo ko yóbboo ca planète Sierra lam fay toll mooy benn waxtu tey masalan boo juddoo woon nit dem fi nga xamante ni mooy planète Sierra bàyyi ko fa def fa benn waxtu soo dikkee ñi ngi fi bàyyi woon ay paa la doon ñii am nañu njaboot ba seen njaboot yi amaat yi doom te yow boo dikkaatee xale ngay doon te yéen a maasi kon yooyu yu yu am la moo tax kon bu fekkoon ne tey nit mën naa travel ci loo xamante ni dana gaaw gaawaayu maanaam lumière li muy daw su boobaa mën naa dem ci travel ci loo xamante ni day gis ci aduna di travel di dem ci future di gis loo xamante ni ñëwagut nga xamante ni bu di kaate fii aduna bi mu ngi dox te eggagul te moom gis na loola loolu ci science rek ci science rek kon waxutuma laa ñi nga xamante ni dañoo jaam yàlla ba seeni ruux set seeni ruux la ñu mën a gis loo xamante ni te lu maanaam nit mën a def ci capacité ruux capacité moo gën a doy waar loolu mu mën a doon mën naa toog fii léegi jége fi dem foo xamante ni leer mënu faa yegg kon ru capacité bi ko suñu borom defal moo ëpp sax doole malaayika yi ndax malaayika yi seen am mens maam seen ru malaayika yi ru lañ mais ruuhul doomu aadama moo ëpp doole ruuhul malaayika moo ko ëpp xam-xam moo ko man-man moo tax yonte bi salaa sallam ba muy rañaan ba egg ca maanaam sidratul muntaha seen jibril dana ko fii laa mën ndax su may jàll damay lakk ci leer yi mais yentu sansam dafa jàll moo tax ruu lu doywaar la lu yéeme la loo xamante ni lim man nit bu dundalee ruu am ba am egg fu mu egg dana def loo xamante ni maanaam dana upp xelum doomu aadama mën naa soppiku ay nit ñu bëri nekk ci barab yu bëri di def di dindi te loolu yàllaa ko ko may comme science nag mën naa sukkandiku ci dara dem ci future waa léegi nag nit koo xam ne dafa jaam yàlla ba egg foo xam ne yàlla moom may na ko lool <laughs> daa mënul lool man na ko ndax léegi fi mu toll yow boo jógee woon fii dem si Sierra am fa benn waxtu ñëw mu toll ci juróom-ñaar fukki fii nga mën a gis loo xam ne am na ci kanam te ñii nii gisuñ ko <laughs> ah kon kay loolu war naa mën a nekk kon daal mu ngi noonu daal xam naa foofu lañ koy yemale waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.